original ay waay féexal sa pur jus de fruits original moo leen di wéttali ci seen bépp xew-xew. ku nekk ci réew mi xam na débiteri le mbote 1 chez Papis bu Serigne Saliou numéro téléphone am di 77 036 50 88 wala fixe ba di 33 822 13 88 ndaxte nag débiteri le mbote 1 Médina rue 11 angle 8 ñëpp a ko bëgg a toppandoo ñi nekk ci biir Facebook bi naan ñoom ñooy le mbote te moom moo créé markam gën fi safle dibi loolu dafa leer débiteri le mbote 1 méchoui sur commande grillade sur papier pigeon moo ci mën poulet moo ci mën dibi bu ñu saaf yëfam la méchoui sur commande wala possibilité vente détail débiteurs yi la mbote un papis mu sëriñ saaliwu mi ngi nekk fii ci Médina rue 11 angle 8 dafa am ñoo xam ne dañ koy piraté naan ñoom la nekk ci Facebook bi di détourner clients yi gars wàcc leen la mbote bàyyi leen papis bàyyi leen papis borom méchoui borom dibi saaf numéro bi rek la am fii la safe terre, on est ensemble, ça bouge pas. bàyyi xel seen chaîne bi di Baol TV ak Sénégal Buzz 221 ñi amaan mbégte bu baax a baax ak contentement jàkkaarloowaat yi ngeen mbokk ñu nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di ñaanal ñu faatu yàlla yërëm leen xaar leen aljana ñu tawat yàlla na yàlla fëgg seen bopp ñi ci ab féeti ginnaaw yàlla na suñu borom génne euh, bañ dellusiwaat suñu biir mbokk ñu leen koy defal comme ni leen ko daan defalee saa su ne nee na leen fépp actualité nekk rek dinañ fa dugg waxtaanee ko waaye mbokk yi tey euh, ñu ngi fii ci fi nga xamante ni mooy zone de captage jël si kenn ci nitu làmb yi koo xamante ni macha allah yaakaar naan kenn dootu ko présenté ci làmb muy kan alaaji Sa Touba euh, waayu Serigne Saliou bi moom lañ seet si tey fas yéene waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci actualité ma ànd kook sama confrère sama xarit El euh, boroom senegal Sénégal Buzz duñ def lu bàyyi ki nga xamante ni mooy El Hadj Sa mu mu nuyoo ñu tugg moom ci waxtaan bi El Hadj nuyu na la ziar. waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñuy waajur. ñu ngi baalu Sénégalais yëpp àq di baal ñëpp àq ci weer wi nga xam ne moom lañu jógee di ñaan yàlla ñu fekkee ko ay ati at ci daraja yonent yàlla Muhammad di jiital ci nuyu bi ak ziar bi suñu buntu ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yàlla sama borom bi yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér ba li nga xam ne moom la naal euh, liggéeyal ko ak yéene ji mu am liggéeyal ko maamam ju baax ja yàlla defal ko ko yàlla defal ko it mu am ngërëmu sëriñ Touba mi nga xamante ni mooy maamam ju baax jooju nga xam ne ngërëm lu mu ci mën di amit ci ngërëmal yàlla lay doon ndax Serigne Touba ku mën di gërëm it demel ne yàlla suñu borom bi moo la gërëm ndax daa jaamu yàlla ba yàlla ko li mu am ak mbooleem kilifa diine gu ne ci réew mi noonu lañ ko ñaanal itam xalif général des Tidiane yàlla yàggal ko fi tam ànd di ziar ñi nga xam ne ñoo demoon ci ziar bi ziar généralu Tivaouane bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm suñu mbokki Tidiane yi wallaay laasim ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax a baax vraiment kontaan nañ trop. Euh, alaaji Satou Ba fi ñuy njëkkee ak moom mooy euh, alaaji temps yi dafa mel ni eh, jafe na lool ci lu mu ne. waaw dama nekkoon Touba nag Korité ba léegi maa ngi woon Touba concentré woon ci liggéey bi mu xawoon na kii trop loolu moo taxoon rek ak déménagement bi nga xam ne moom laa ñëwoon fii zone de captage mhm. ma nekkoon ci bagage yeeg yooyu loolu moo taxoon daanaka gars yi gëj ma gis mais wax dëgg yàlla maa ngi leen doon bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Mhm. am na solo waaw ah, dañuy ñëw direct ci li nga xamante ni mooy actualité. ji Sa Touba tey euh, jamono ji nan la gisee réew mi ak ni muy doxee ak li nga xamante ni jóge ci muy euh, élection présidentielle yi mu nekkoon loo xamante ni bëri na coow lool tey nan la gisee réew mi ak ni muy doxee. waaw vraiment dañuy santaat yàlla rek. julli ci yonent bi di ñaan ci yàlla. mi nga xam ne dara taw ko mu yokk ci suñu réew mi jàmm. ak sutura. yàlla nañu ko yàlla dolli bu baax a baax a baax. ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew mi yàlla bu yaakaar tas ci ñoom. ci barke yonent bi ndax it lu waaye def mu sotti yàlla la neex yàlla na leen yàlla kàttan na ndax fii koo mun a doon ci àdduna looy nekk lu ne rek yàlla moo la ci mun a dooleel nga am ci doole kon yàlla na leen ci yàlla suturaal bu baax a baax a baax di leen ñaanal jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah Aïcha loolu entre parenthèse woon loo xamante ne mënuloon ñàkk mais Alaaji Sa Touba ku ko xam xam ko euh, ci làmb ku ko xam xam ni yàgg na ñëw arène national indi ay champion ñu fay ñu fay bëre di wane seen bopp yàlla di leen suturaal di leen may ndam démb ñu génn ci journée boo xamante ni combat boo xamante ni combat yërmande la lan lan ko mën a tuddee mu doon dox ci diggante ki nga xamante ni mooy jokkeel bu Fatick ak Papa Boy Djiné ñu gis ni làmb ji demee yàlla may ndam ki nga xamante ni mooy jokkeel euh, xañ ki nga xamante ni mooy Papa Boy Djiné tey boo ñu doon wax ci làmb démb ci euh, nan nga ko gisee. waaw dañuy féliciter d'abord jokkeel di encourager Papa booy Djiné jokkeel di nit ku baax. Mm-hmm. tey moom ma njëkk woo tey ci fajar moom jokkeel mhm. te bi ma wooyee waxuma waxi boppam li ma njëkk wax mooy saa mu ne ma mu ne ngir jëmmi Serigne Saliou mi nga yaakaar dama bëgg nga jàppale Papa Boy Djiné mhm. loolu la ma jokkeel wax maam wax ma wax joo xam ne sama yaram dafa daw mhm. vraiment muy nit ku baax nag di taalibe moom jokkeel diiru combat bi yëpp mun naa ne déggante wuñ ci parce que xam na ne man am naa cofeel ci Papa Boy Djiné te li ñuy wax rek lu yàlla tudd papa xam ne yàlla moo ko tudde woon nii tey dafa am nit yoo xamante ni yàlla moo leen di suturaal chaque jour man tamay wax chaque jour ma yàlla lu tax saa su ne rek mu may siggal ci samay nawle papa ay yoon yoo xamante ni maag moom buñ ko déggantee ba kale rendez-vous la koy fausé sax du ma xam lu mu doon su ne ma di suba jour tel dinaa ñëw bu ma toogee di ko xaar mhm. ba dernièrement su ma ko wooyee mu expliqué empêchement bi ko teewoon ak yooyu ma comprendre ko uh-huh. macha allah tey uh-huh. yàlla dogal lii ko dal nii dal ko uh-huh. metti na trop mais méttiwul pour man ndax xale la te julli dëgg bu la yàlla bëggee dalay teg ay nattu papa war naa xam ne moom julli dëgg la ndax nattu yi ko yàlla di teg julli rek la ko yàlla di teg na xool ci Seexuna Ahmadu Bamba Xaadim Rasuul yaakaari jaam ñi nattu yi mu jànkoonteel ak lim fu mu mujjee tey mm-hmm. ay ndam yi kese moom lu mujjee mm-hmm. papa Baay Faal la mm-hmm. taalibi la te ku ko xool xam ne ay ndam wala ay làmb booliwu ko nitam yi mu am xoola papa démb stade boo ñëwee xool li mu def stade bi ñu ngi fay ay mbër ay million ñuy bëre grand combat li papa def stade bi démb defuñu ko xoolal li taxawoon di ko xaar di xaar ndamam mm-hmm. waaye nag yàlla bis bi nga gën a bëgg la lay gën a xaj pour wan la ne la carrément man maa lay teg ay nattu mm-hmm. waaye maa ngi ñaan ci dara ji yonenti yàlla Muhammad barke mboolem ko mos a liggéeyal suñu borom mm-hmm. nattu yi yàlla na fi teggi ko ba faw ndax jullit la ah man boog am naa ci moom yéene te it wax naa ko yit ndey gay léegi nee naa ko xaaratuma leen man may jël samay responsabilité bopp ndax papa dafa bokk ci làmb te ay moromam dundoon nañ lu mel nii ma jël leen mhm. changé leen ay ngemb mhm. jaayanteeg ñoom mhm. def ci li ma yàlla may yàlla suturaal leen ñu am ay ndam jël naa fi mbër mu toog lu ma trois ans quatre ans daanut mbër ma taxaw ko yàlla defal ko jàmm moo am ay ndam néewuñu nag mbër buñ ngemb da ngay daan waaye yéene ji nga xamante ni am nañ ko ci mbër yi ak li ñu yàlla mayees que néew ñuy dem di ko def ci ay mbër yàlla diñ ci suturaal ci wàllu xëccoo ndam fas yéene nañ jël papa. Mhm. def ko ci moom te yàlla rek tax. wallaahi la azim. Mhm. combat bi dama ci demoon demoon demoon demoon ba am ci ker parce que sama ñaari nit a doon bëree. ñoom ñaar ñëpp mu ñëwoon taloon yërëm leen. Mhm. mais papa dama ko yërëmoon de trop xam nga comme que jokkeel mi doon bëree moom sax moo ko yéene woon. waxuma laa keneen. te man biir na ma biir yàlla ne jokkeel daa bëggoon làmb ji niil. dafa bëggoon làmb ji niil waaw. parce que ci ay kàddoom bu ko jëlee première wax na lu mel. ku xool sax làmb ji dégg nga li mu wax papa après public bi ñoo mujj ñoo ko mujj xam nga rek xabtal ko. Mhm. mu dafee fi kii jokkeel sonko benn sonko làmb ji jeex fa. Mhm. mais bu fekkoon ne làmb ji daa kon ne damyee ni mu doon damyee rek. Mhm. non non kon làmb ji du jeexee noonu. vraiment am na solo ndax loolu la bëggoon. mais man bi may dem stade. ñoon matu xam nga leen te ñu nekk stade. ñoo toog ma ñoom. te sama gars yi maa ne ñoon bàyyi ñoom ñëpp. dañuy dem ma ne leen dañoo war a fomm sax seetaan ma si Barça bi ñu ne ma lan moo tax man leen parce que man dama ñëwantal papa te làmb ji ma xool ni newut ci ay loxoom. moo tax xam nga da ngeen daan gis bu làmb musaana ma esati. mais mënu ma leen esati ñoom ñaar ñëpp. moo tax bi ma ñëwee toog ak ñoom ñu wax matu ne ma saa fii lañ daan toog nga ñu wax parce que man dama am habitude sax bu ma ñëwee esat mhm. ñi nga xam ne am nañ seetlu. Mhm. dama am habitude bu ma ñëwee stade euh, ci làmb mm-hmm. des fois bu ñu demee ba grand combat bi war a dem mm-hmm. war a daw damay damay damay jóg mm-hmm. jaar ci ginnaaw xoolaat làmb ji man xoolaat làmb ji waaw xoolaat ko bu baax a baax bi ma jógee xoolaat ko laa ñëwaat toog mat na ma saa waxal nga gis matoo ngi toog xam nga nit kenn ko fenal te ndax mi ngi foofu estade te xamul sama kër xaw ma ko yoruma sax numéro barki Seydina Mohamed ñoom ñëpp ngi toog moo ko ay xaritam ñoom papa rek lañ bëgg parce que ñoom papa bokk benn koñ. dëgg la ma ne ko matu mun a ma ne ko papa lii moo taxaw ci làmb ji jokkeel da koy yërndu rocc ko bàyyi ko mu def kat appi bu moytuwut. Mhm. beneen bi ci topp mun a ma ne ko lu mu mën a moytu ba jokkeel du ko féete suuf rek moo ma gënal. Mhm. parce que bi ma xoolee damaa gis jokkeel woo ko ci xeex. Mhm. mu wuyu ko mu song ko daan ko. dal na sama xel. waaw ah, vraiment seetloo jokkeel ba mu koy daan da koo féete suuf. waaw ah, parce que da koo sàcc. Mhm. féete ko suuf. mais nag bisu ñàkk la. du bisu am yàlla moo ko tuddoon loolu ci moom te gis ngeen. Mhm. barke alxuraanul karim booy wër gor dëgg jàppal Papa booy Djiné. gor la. Mhm. garmi la bayfal la muñkat la. lu garaaw laa lay wax nii. yéen ñaar yaakaar naa ni yéen a ngi doon déggante wax nga ko léegi tey ngeen am wóolal seen diggante ñaar léegi nii fu ne jamono ji ak fi làmbam toll. Euh, Sa Touba pare na pour jël engagement euh, jël ki nga xamante ni mooy Papa booy Djiné ànd ak moom ci làmb teg ko ci ko. waa dama bëgg ñu may ma ma tànn sama sens la comme que ñu tànn ma tànn sama mm-hmm. comme que bu dul dara. Mm-hmm. donte benn fan def naa ko ay preuve ci Sénégal ci milieu làmb. Mm-hmm. ñuy gis. mais nañ ma def nañ ma bàyyi ma tànte ma jëlal sama bopp samay responsabilité waajalal ko waajalal ko sama bopp. ànd ak moom indi ko arène nationale nit ñi xam ne tey Sa Touba la àndal. boobaa nag lu ma yàlla may nit ñi teg ci seen bët. waaw. su ko tollee noonu waru doon xaar papa di ci moom ab jullit day jéggale mhm. ñun Serigne Touba yaakaar waa xaral ma wax la rek sëñ Tuubaa lañ yaakaar bi muy jégal ay noonam àndul rek ñoom ba fii mm-hmm. ndax dégg nga baax na da leen di jégal ngir jëmmi yàlla ji mm-hmm. sëñ Abdou Lahad day nee ne ku fenn dalaa neex kenn ku ne xamal nga sa bopp loo xam ne waxtaan du neex ba nga mm-hmm. nettali ko te gëw ma ne sax kooku la ndax bu doon moom la du toog di ko nettali non bu dama ne gëw ma ne laa la wax kii wax loolu gëw ma ne loolu moo téye papa parce que su doon moom la bu doon loolu la du toog du ko nettali xam nga gis nañ fi nit génn taxaw ne diw feebar bi ko dal maa ko teg te or ne loolu yëpp après gis ngeen fu mu mujjee nañ bàyyi loolu diw maa ko teg nangam fii yàlla rek a fi ne lu waaye def mu sotti yàlla la neex ndax dégg nga bu baax li ma ne ngay dégg yow loolu nga dégg nit dañuy déggaat leneen des fois nga dégg jënn yaa ngi dégg ñu naan am na mbër yu mag yu koy yu koy def nangam. def nañ lii def nañ laa. léegi waaw léegi tey bu ñu wëlbati ko waatee keneen jënn fee na na fàttali ko ba mu ma defee nangam ak nangam ak nangam. Mhm. ci yooyu yenn jamono la. yooyu di profité waale di wut pourtant man mii di wax ak yow rek man xam naa ne Moodu li nekk ci ñëpp moo ne ci moom mooy mooy yéene na papa ndax it dafa seq ak jabaru papa kóllëre bu rafet bu nice ci jàmm ba dara du dara Moodu gisuma ko may xam naa ne am na lu ko metti man xam naa loolu fi mu toog rek maa ngi xalaat ma naan papa xam naa bu ñuy jàllee dinaa ko woo sax ñu ànd dem toog de Lagros seeti Moodu mu toog waxtaan ak moom quoi pour xam nga. gën a waxtaanaat ak moom ci wàllu sport. papa warul xaddi. ndax bu doon loolu Eumeu Sène du doon roi des arènes. nekkoon na ci guddi yoo xamante ni kenn bàyyiwu ko xel kenn xamu ko. kenn du ko tudd. waaye lan moo ko may non non mu dem ci Modou Lo waxuñu mu démissionné jënd géej waaye. Mhm. dem ci Modou Lo déedéet mu gisee moom toog waxtaan ak moom xel du doy. Mhm. mu teg ko ci yoon. Mhm. conseil ko ñaanal ko. gindiwaat ko ci làmb ci sport. gindiwaat ko ci digganteem ak suñu borom. xamal ko ne ko yàlla mooy maye te mooy xañe. gis nga bu waree neex wut rek moo jafe waaye am yàggul te na solo wér rek moo jafe waaye am yàggul mais tey Papa Boy Djiné saa bu bëree version yi day bari ñii ne du mbër ñii ne na bàyyi bëre ñii ne na dem Modou moo bi version yi ne ngay dégg tey boo amoon loo koy lii lay wax tey nag booy kenn mënu leen a nax supporter yi mhm. am na qualité yoo xam ne bu ñu ko gisutoon ci moom duñ ko topp papa ñi seere ñëpp ne dañoo mën a bëre mhm. daa mën a bëre mhm. ah, duñ benn duñ ñaar ay mbër yu mbëreel mba sax dañuy jénn ñoom di voilà mais léegi kan kon lan moo war a mën a tax ñu taxaw rek ne kii dafa mënut bëre wala dara déedéet dafa am loo xam ne day ci nit ki ndax dégg nga bu am loo ni te bu deñee ci nit ki da ngay fexe mu ñëw jëlaat place am toogaat ndax dégg nga ma uh-huh. mais ñu bari ne Papa Boy Djiné buy waaj day nekk ci làmb ji mais lii jaaxal nañ mooy bu ñëwee ba ci stade bi rawatina bu duggee ci géew bi lañ ko fay def fa lañ ko koy defee ñenn nañ dañuy ci fi mais gàllaaju biir géew daa amut ñun suñ sorti yuñ mujj a bëre Modou Lo sorti yu mujj a bëre mbër yu yuñ doon bëreel ñëpp ku nekk xam na ne ay bagages yu biir géew dañ koo am ndax feeñ na ci ñëw sëñ bi yàlla dafa maye. ndax dégg nga ma man daal yéene ji ma am dëgg dëgg dëgg daal pour Sénégal yi teg seen bët. papa booy jinne am combat ci lu yàggul dara. man saa Touba. ma ànd ak moom yóbbu ko làmb ja ba yàlla may ma. macha allah xam nga ay. ay wërsëgam wax nañ ko gis nañ ko ci làmb yooyu gis nga loolu kenn du ko wax même boo ko xamee sax waroo ko wax ndax gis nga mbiru internet du da ciy toog di wax nit ci loo xamante ci fiyam ay sel yi néew ci làmb wërsëgam papa li muy dund nii du ci làmb la koy dundee kon bu ci wërsëgam nekkul noonu dana ko ci dund te pourtant tabaxul këram ba mu yegg ah ñaata defet la tegale te ñi am ay victoire moo leen ëpp kase loolu du wërsëg ay nit raw la fopp ba pare nga ëppale leen loolu koy wërsëg mënut a paase loolu kon yàlla kay dimbale na ko ci côté boobu ak tur bi mu ci am ñaata doomu aadama ñoo ñoo toog démb mënuñu lekk ndax papa booy jinne te xamuñu ko mosuñu toog ak moom mais tamit yàlla buy defar day mel na koy yàq suñ borom bu la bëggee dëgg faaw mu teg la ay nattu yooyu jànkonteel pour en cas ëllëg papa lay xamee lu bëri papa su ma juumut mos na ma envoyé benn vocal boo xam ne dana ma saa boo ma dimbalee ba ma am ndam sauvé woo ma li topp sama ginnaaw nga soowee ma ne ko papa mun a ko maa ngi ñaan ci Serigne Saliou bis bu yàlla dogale maa yow ba ñu jëflante ba ma ànd ak yow indi la ci làmb gëm naa ne yàlla dinañu suturaal waaye gis nga xamul sax lan moo ko tee ba nii te dañuy wax téléphone mun na mun na ma woo téléphone nii ni wax na ma dama fa bëggoon ñëw wala nangam nangam ba ma jox ko jour mu fausé mais loolu la yàlla tuddoon uh-huh. yéene jama amoon moom mooy amoon naa yéene jàppale ko ci làmbam donte sama ñaari nit ñoo doon bëri mais amoon naa yéene parce que nag dafa am secret yoo xamante ni ci làmb soo ko liggéeyee sa mbër dëgg te caaxaanut même su daanut duñ ko daan làmb ji mun na tër man léeg-léeg sama ñaari mbër bëri ma tëj làmb ji day am mën naa ci citer ay combat yoo xamante ni doo mën a wax waa mais ñi seetaan dañuy xam ne lii te ñi ma nekkal stade ñëpp dañuy gis dama leen di wax baay bàllam boobu taxaw nañ ma ne ko sama ñaari mbër ñooy bëree làmb ji dama koy tëj ñoom ñaar kenn daanul yàggul dara ay combat mais mais démb mënuma ci ñaanal kenn ñoom ñaar ñëpp dama leen ko wax man sama ñaari mbër bu ñu bëree dama leen koy wax ku ma ci woo doo ma jot boo ma envoyé vocal ma ton la xamal na la la li ma seqe yow laa seq kee te bëgguma fen bëgguma nga gis ma jikkee gis ne dama laa war te defalu joxu leen ma lu tax may kii parce que au contraire maay sonn ci yéen. damay toog ne du kenn du ci ñëw sama kër du ci jox kenn dara. Mhm. macha allah mais mais démb papa bi nga gis gisoo ni indi na loo xamante ni du gàllaajam loo xamante ni lii war ko woon yor démb ci làmb ji. indi na forme bu baax. ci ngemb li laa doon insister moom. Mhm. ci ah, ngemb li waaw loolu. tegtal la woon boo xamante ne waru koo woon mbër bu nekk ci jafe-jafe dëgg booy changé ngembam waroo ko indil malikaan waroo ko indil bu weex bi su doon sama sago du ko ngemboo parce que avant loolu sax insisté naa ci woo naa ko ñuy waxtaan ma ne ko ndax am nga ku defaral ngemb ma waxtaan ak moom ba dugg ci domaine boobu xam nga après moom it xam nga rek ñu waxtaan mais yàlla moo ko tuddee woon noonu daal malikaan xam nga mosoo fee gis néew bu fi bàyyi ko ñu lëmës ko wax wala nga ñu lëmës ko jaune wala rouge di ko denc dañ faral di wax na la mbër boo gis sax en général muy indi ay percal yu bari ci biir làmb xam ne làmb ji des na ci moom dëgër na ci moom percal alalu néew la ndax dégg nga moom dafa am ay secret nag yu ci nekk mooy waral des fois mbër da koy ngemboo ba pare sax ñu tojal ko roofal ko ay ver ay rouge ay yeneen couleur pour tojal ngemb li papa démb ngembam dafa waroon a toj bu bëree bëree bari bëri mais boo waree ñàkk rek li koy daan doo ko xam moo oto buy def soog ñooyam bu waree def soog ci autoroute bi di distance bu gàtt mën na ci bañ a daw benn xil nga gis ko mu daanu di prier bañ naan lan moo ko war a mën a daan. allah am tey boo amoon dernier conseil boo xamante ni yaa ngi koy wax papa booy jinne loo koy wax. mooy bu dawee rek ndax papa xam na ba xam nattu yi ko yàlla teg ci làmb nii lan la koy fangal ndax xam na ko papa na xalaat na dundoon na lu ko gën a metti tolloon na période boo xam ne gisul mag gisul rakk gisul dara caabi féete ko ginnaaw yàlla teggil ko nattu yooyu. mu ñëw yàlla tegar ko natt yi mu doon xale papa jullit la de nit ñi ñoom la ñoo ko jaaxal mais papa loolu jaaxalu ko moom moom daa gëm yàlla barki sëriñ Saliou Mbacke ku gëm yàlla la billaahi wallaahi taalaahi ko seere man xam naa ne ku gëm yàlla la ndax seetaan naa si booye mi benn kenn muy wax ne moom papa moo leen di woo sax téléphone di leen dalal naan leen lii yàlla la mhm. te boo waxtaanee moom téléphone nga xam ne kii ku gëm yàlla la nattu yii nga xam ne moom la ko yàlla teg papa mënoon na jënd làmb yeneen nattu dal ko yiwut bokk teg yi parce que nag yàlla bu lay teg ay nattu te jeexut da yaakaar ne dalaa bañ waaye da nga yaakaar ne yàlla sàkku la waaye nag bu waree jeex rek day jeex te gëm naa ne dina jeex incha allahu rabbi ndegam soob na yàlla booy say tegaloo fi set defet ñëw jàpp kan ak kan daan leen ay sitaak tijaan faye daan leen Zos néewutoon ci ay jafe-jafe. Mhm. jàpp kan daan leen. ñëwaat daan ñoom Issa Pouy. ñoom Boy guy gi guy gi. bàyyi woon est-ce que dund loolu. Alioune Seye 2 mi ñaata at la toogoon bëriwut. léegi da ngay tudd kenn ci làmb te tuddoo ko. yàlla fi nekk. Mhm. anam ak saa kajoor xoolal li ko yàlla cërale woon ci làmb mm-hmm. ak yaakaar gi sénégalais yi amoon ci moom mm-hmm. xoolal nattu bi ko ci yàlla teg mm-hmm. ba mu dégg lu ne ànd ak xolu muñ xam koy seetaan ba mu yàgg sama yaram dafa daw ma xam ne yàlla rek mooy karim jullit akkan mooy saakajor yàlla na ko yàlla dolli sutura may ko wér ndax saakajor boo koy seetaan bu communiqué bu waxee yow da ngay fàtte waat sa bopp boo moo amoon problème da koy fàtte parce que da nga doo xalaat ne kii moo yoroon feebar boo xamante ni tey nit ñi dañuy jënd seen xel ci moom. Mm-hmm. mu toog di ko wax di neewi di bës yaramam muy jën muy dugg ko jën mu ànd ak sa waa dal. Mm-hmm. xam ne yàlla ko teg muñ loolu ba yàlla di ko teggal ni tey ba mu nekk ci jàmmam di ñëw ci njabootam di voyage dama ko ñëw. Mm-hmm. julli dëgg noonu lay def. ku gëm yàlla la yàlla na yàlla dolli suturaam yokk ay fanam nag yàlla na dund téeméeri at papa bi muy papa bi muy ànd ak Ndeye Gueye amul kër papa bi muy ànd ak Ndeye Gueye laa la de avant muy ànd ak Ndeye Gueye amutoon kër mm-hmm. avant muy ànd ak Ndeye Gueye papa demutoon xombal papa ànd ak Ndeye Gueye tabax na kër. def ci prix de quinze millions. papa ànd na ak Ndeye Gueye yéeg avion dem voyage ñëwaat papa ànd na ak Ndeye Gueye ay moromam du ci tàllal kenn loxo kooku jigéen dina ko nañ bàyyi loolu. dama fi doon gis mbër bu mag sax bu takkee soxna daanu ñu naan séet baa ko waral ak def na léegi ko dabar ji jigu ko. loolu loolu na ko xolal bu mu ko bum ko déstabiliser. Moodu bi mu bëreeg Bombardier takk soxna. bi mu daanoo dégg na lu ne. anamu tay ba ci jógee nu mu def. waaye nañ bàyyi loolu ñoom ñaar seen sëy bi yàlla ko takkee ca aras jiitu na seenub juddu te am nañ ay mbokk am ay kilifa sëy boo xamante ni xam nga yàlla rëbbun na kuy wax luy féewale ay nit rawatina sëy seytaane ku jaxasoog iblis dëgg mooy dugg ci sëyub jàmbur ndax dañ sëy ci lan la bokk ci faratas yàlla ak suma muhammad nga ciy jaamu yàlla papa mu noonu ne def comme ay moroomam di taxawaalu nekk ci boppam kenn déggu ko ciy ñàkk fayda yooyu soxnaam la xam soxnaam la am soxnaam itam papa jaral ko bakkanam bi ndey gay ku ne xam ne bu papa amee bis du découragé day jël alalam investir ci ay nitam jël ay millions def ko ci papa jënd ay billets jox ko xale yi ñu dem ngir jëkkëram ak sagu jëkkëram mu koy wut mais yàlla moo ko tuddee noonu seen diggante ñoom ñaar tey nit dund na 40 ans amul jabar nit dund na 50 ans musul am jëkkër nit tas na six fois bàyyi fi jànq bu musul am jëkkër di sëyi ci kawam ak dem ko ñëw te jànq ba du dégg ku ne ko alxayri nañ bàyyi yooyu loolu jiitu na suñu juddu yooyu ay wax la nii rek barki seexul xaddim bu ko jigutoon li mu dund nii ak li mu am nii loolu ñoom ñoo koy wax mais papa magum jëmm la xam na ba xam nday jig na ko walla jigu ko ay nitam yokku nañ ay xamem yokku nañ ay bëggam yokku nañ nit ñaa ngi koy gën a bëgg muy gën a am ay nattu nit ñi di ko gën a bëgg di gën a am ci moom yërmaande gën a am cofeel ci moom taxawaalu jut sàccut fenut dëkk ci këratu amee tey loolu kay ab sag la. am na solo.